bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen tàmmul seen bopp ftn média yéenekaay yi xibaar yu bari leen xëy yeggee ñu ci altineb tey ji fukki fan ak juróom-ñeent weeru février atum 2024 waaye li ci gën a fës bokk na ci ñàkk déggoo gi am ci way politique yi ñeel bés bi ñu war a tëgg élection présidentielle bi vox populi ne pëcc dëgg kay moo ci am wuute gu kenn mënta gis coalition jomaay président journal ba ne ma ngay sàkku ñu amal booba lépp élection processus bi nañ ko tëggaat maanaam nan defaat lépp ngir ñépp bokk waaye ca boobale ponk yéeni kaay bi nee na du candidat yiñ téewoon yépp ci déggoo ndax am na ñoo xam ne jàpp nañ ne bay wéy na mbuus kon ca la conseil constitutionnel dogaloon lan war a tënku maanaam listum ñaar fukki candidat ba conseil constitutionnel génnee woon jàpp nañu ne ñoo ñaa war a dem ci élection bés bi ne waaye élection moom ngir mu am faw déggoo am ndax le consensus feetluwaa ci gëtu yéeni kaay booba waxtaan dong mën a mun a génnee fi ñu toll journal bay laaj ndax article 36 lañ war indi ngir weesu gilib coow bés bi ne waaye réew mi mën naa jokkoowaat ak conseil constitutionnel ngir xam ci ban date lañ ko war a tëgg waaye itam ci mbiram Rose si la expert électoral ne ak lu mën a xew conseil constitutionnel moom dogal bii mu jël am na lu mu maye maanaam ñu jéggi ay loi ay dérogation waaye nag waxtaan ak déggoo moom faaw mu am ndax njaga nee na le consensus est nécessaire booba leb journal it ma nga ñuy yeggee taxawaayu PDS ak yenn candidat yi ñu teewoon ci coowal parrainage gi ñiy sàkku ñu daal di tëggaat processus bi gàkku mi dal ci kaw Amadou Ba ca booba leb journal nee na ñetti fan ci weeru mars mbaa fanweeri fan ci weeru mars kenn mënu koo weesu ndax njiitu réew mi war naa abale balaa ñaari fan weeru avril loola it lañu ko fekkaan muy wax ci les échos ca boobaleb yéenekaay moom gàkku moom Mali gàkku ma ngay sàkku ca moom mu leeral coowal double nationalité gi ko topp ma nga it sàkku ca moom muy ndi leeral ci situation fiscale maanaam ndax amelu dara réew bi jëm ci wàllu impôt yu mel coowal fu quotidien it loolu la gàkku wax leeral coowal double nationalité am ba nuppi teg calendrier bi mu jàpp ne buñ ca tënkoo élection présidentielle dana am ca yoon Rose Wardini min fi yóbbu woon ci yoon ndax double nationalité tribune kaawam la xëy teg ci xëtam gu njëkk journal bi dooree ci ab laaj ne ñaata candidat la jàllale te nu am yeneen nationalité journal bi ne buñ tënkoo ci kaawu Rose Wardini bii nag Karim Wade dañu ko war a toppee parjure faux et usage de faux journal bi ba mu tegee moomale mbir mbiram d' enquête parlementaire bi journal bi ne kon pëccëxoo ak coow lin fi indi woon yépp fii lan ci doon mujjee ñoom waa nguur gane ndax dogal ba juróom-ñaari sage mujjee jëlit député yi am nañ luñ ca wax yéenekaay bi ne groupe parlementaire bennoo ba nuppi nag bàyyi lépp lu mu jàppoon loola Abdoulaye Wilane am ca nañu assemblée nationale groupe parlementaire bennoo ba rawatina communiqué la génne ci mbiram conseil constitutionnel ak dogal bi mujj jéejal ne dafay indi jiixi jaax ci moom sa bopp gi assemblée nationale war a làmboo maanaam souveraineté loola nag Abdoulaye Wilane ñaawlu ko te dal ci kaw ay ñoñam ne communiqué booba nga xam ne daa am ñu ko génne bokk ci Benno Bokk Yaakaar nangu wuñ ko itam signé mënees na koo jàppee njombe juróy waral vox populi ne malaise dëgg moo am ca assemblée nationale ca booba lépp journal Babacar Gaye yëkkati ñeenti laaj jëme ci juróom-ñaari sages yi conseil constitutionnel ak dogal bi ñu mujjee jël kenn ca ñooña bokk ca conseil constitutionnel nag bi ñu ca jiboon bokk na ca lu waral teewul woon keroog ba ñuy jël dogal ba source aane la ko waral maa leen koy wax ndax Cheikh Ndiaye mooma jamono ja ay ñoñam doon toog ca conseil constitutionnel doon waxtaane décret Macky Sall ba newul woon ci réewum Sénégal journal bi ne ba muy tukki sax fekk na recours ba kenn dugalagu ko te gannaaw lan sàkk woon ciy lim ngir mën a càmmar googale mbir matoon na ca conseil constitutionnel kon amul woon genn jafe-jafe amul woon it lenn lu war a tax mu war a ñibbisi ngir teewee ko yéenekaay bi ne lii képp moo waral magistrat bi di Cheikh Ndiaye new fa woon délai ma ngi ca indi coow ca vox populi maître amadou mbeng di wax lan war a dégg ca boobale baat ak fan la àpp ga yem point actu jox kàddu ñu bari ñuy wax ci àpp gi ñu rëddal Macky Sall te mooy ñaari fan weeru avril gi mu weesu bu ko weesu nag maître Abdoulaye Tine nee ñu ngi jëm ci vide du pouvoir l'observateur tuddee loola les poisons du avril yéeni kaay bi itam sëgg ci mandaawu njiitu réew mi war a jeex ñaari koo tëgg ba lay booba ak jafe-jafe yi ñu am ngir jàpp dat loola di coowal dat ba mu njaay siise yëpp Sud Quotidien nañu aar sunu élection mooma ndaje mi mu woote woon keroog ngir ñu tëgg élection yi la tey ñaari fan avril mënees naa jàpp na ca la de mobilisation moom bu leen ko bàyyi tée leen fa ngeen tée a am bala la coalition Diomaye président di sàkku ca la réveil élection présidentielle booba lépp coalition nee na nanu ci bopp réew mi bala ñetti fan avril coalition Diomaye président beneen càkkuteef bu mu yëkkati mooy nañu bàyyi seenu candidat di Bassirou Diomaye Faye ak ñépp ñi des ci kaso bi bàyyi googa ñu tàmbalee bàyyi ñi naan détenu politique nag enquête mag ñu cay indil ay leeral ne parquet di procureur moo daal di santaane ñu teggi loxo ca ñoom ate paane waaye loola lu ko jiitu mooy càkkuteefuk Ousmane Sonko ngir waxtaan mën a am digganteem ak Macky Sall Pierre Goudiaby Atepa ca boobale bi yéenekaay ne Sonko dafa ni nan ko jox luy wone ne Macky Sall mii fas na yéene amal waxtaan yu dëggu te mooy nañu bàyyi képp kuy détenu politique ni ak moom moo tax ñu tëj la ci kaso bi moo ne de ca Walf Quotidien El Malick Ndiaye chargé communication bu Pastef ma nga naan tegunu benn condition ngir seen farandoo yi ci kaso bi daal di génn nee daal ña leen jàppoon ñoo toog ba mu yàgg ñu xam ne dañ leen war a ba ñu baleen fi ak werante woo way leer maître Amadou Diallo avocat nga a jox ñooña di détenu politique yi ñu tëjoon ba mu yàgg ñu génnee leen ndax nee na fekk àtte amul kenn mënta wax waxi ndàmpaay di indemnisation xeex woon war def nag ngir jëm ca loola ma ngi koy leeral ca boobaleb yéenekaay ca l'observateur nag ay borom xam-xam ña ngay wax ca détenu yooya lañ yëkkati ni tuuma teg ci kaw takk der yi ñu ni loola mënees na koo jàppeeg menace gu bees te itam lu mën a indi fippu mi fippu woon ba gàddaay juróom benn weer fukki fan ak benn ca Mali yoor yoor beeg ñu yëgal ne dellu si na dellu si gu am maanaa journal bi ne Ngagne Demba di ay ñooñam dañ koo teeru ni ñuy teeroo buur Grand Yoff gëm dëkk journal ba ne kenn xaju fa woon ndax mu ko tertu si woon journal bi ne ñibbisi Ngagne Demba Touré googa nag wane na ni jàmm ngi xeeñ ci réew mi ngelaw jàmm gii di upp nag réew mi quotidien ne nu yegg na ba Ziguinchor ndax Dakar dem dikk ma fa dakkaloon dem ngaak dikk ga sax yégle na ni dana ko tàmbaliwaat yéene kaay bi ne gannaaw ma demoon Mali jaar cab gaal gannaaw ba ko di convoqué libération it ma nga ñuy yëgal ne delsi na ci réew mi fekk na yéene kaay bi ne juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ñu tojoon ci kaso bi génne nanu leen diggante alxamis ak àjjuma buñ sukkandikoo ci rado Alioune mi fi jiite woon rado jiite tey Afrikajom Center te bokk ci ñuy dox tànki jàmm diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko ma ngay xam le ca libération ne tànki jàmm yii nag du loo xam ne dañoo xëy rek def ko maanaam du luñ improvisé Alioune Tine kon wax ni loola dañ koo yàgg a togg booba jamono professeur Ahmed Ndiaye constitutionnaliste mel ni ku naan dogalub conseil constitutionnel bi dese naa ñor jàpp na ne ña ca conseil constitutionnel am na lu nu daw ci bi lépp dogal ndax mënoon nanoo gën a leeral bokk na ca jàppoon bés bu nuy amal élection yi muccal nit ñi ci woowale coow le quotidien ne coow wax kañ la élection di am maanaam ca lay convoqué corps électoral Macky mooma it le réveil mag ñuy xamal ne teggi na conculam tegoon ca dossier ya woon ca OFNAC maanaam léegi tey kon ñu tàmbalee topp ña yooyele dossier soxal lu soxal Frank Timis ak coow lam am ci African Agriculture ca la libération xëy nenu coow dëgg moo ko topp moom Frank Timis gannaaw bam loxo ci ñaar fukki junni hectare ak juróom ca njaayel journal ba ci tënk ne action wam ya tàmbalee daanu juróom-ñeen fukk ci téeméer boo jël booba jamono le soleil ne Sénégal moom ma ngay jëm kanam ndax bokk na ci ñaar fukki réew yi nga xam ne seenuk yokkute ci wàllu koom am na maanaa ci atum 2024 gi buñ sukkandikoo baat di banque africaine de développement direct news ne li ci gën neex nag mooy Sénégal fi ne bailleur yaa ngi koy gën wóolu gannaaw coow yi fi am yépp yéenekaay bi ne tey la yooye la bailleur gën jox bopp Sénégal Miss Sénégal Fatou Lamine Lo l'observateur booba jamono ma nga ànd ca journal ba it ma ngay xamle ne ku parewut moom pare na ñu jeexal ak tiis wi ni l'observateur ak yeneen yéene kaay yeggee muy jéyee ja xew keroog ca Colobane ab camion moo saaraan dal ci kaw ñaar ñu doon jaay fëgg jaay ñu jaaree fa ñàkk seen bakkan vox populi ne nu yokk na ndax kenn ka ca amee woon gaañu-gaañu yu it mujjee naa faatu muy ñetti bakkan yu rot ca booba lépp jéeya ca la nuy taxaw tey ñun ñaanal leen kendal ak jàmm dig dajee ëllëg incha allah